asalaamaaleykum wa rahmatullah waa 24 actu maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di am ci contentement tey ci ngeen seet waat ma fii ñu waxtaan ci mbirum actualité yi ñu génn ginnaaw loolu maa ngi leen nuyu di leen nuyu ci turu sëñ Muntaxal Bachir di ko ziyaare di ko jox wàccuwaayam di nuyu mbooleem xalifatul am ku nekk ci dëkk bi leen ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di nuyu waa département Mbacké yépp di leen ziyaare kàddu yi may yëkkati mooy kàddu sant yàlla sama boroom ak sant sama ñaari waajur yi di leen ñaanal njégal ak yërmande di sant Serigne mu comme ni ma ko tàmbalee woon ci njëlbeen di sant waa département Mbacké yépp di leen gërëm ndax yaakaar naa ni maa ngi woon ci liste bokk gis-gis bu président Pape Diop nekkoon ci majoritaire bi ci deusième position wane ci nag sama bopp bu baax natt ci it sama bopp ndax ay élection boo ca nekkul tête de tamit nekk ca biir liste ba war nga caa mën a natt sa bopp comme ni ma ko yàgg di waxee man bi ma tolloo ci laaj ndawtal dama daan wax ne man su ma xewlee war a laaj ndawtal bala maa wootee ndawtal xam naa calculer naa li ma war a am ba ñaata la bi ma nekkee ci liste bi tamit wax dëgg yàlla natt naa sama bopp ba xam résultat bi ma am ci liste bi nu mu toll ma ciy sant yàlla bu baax di ci sant waa département Mbacké di ci sant samay mbokk ak samay xarit di sant waa diaspora bi nit ñi nga xam ne dañoo bëgg Mariama te yàlla tax ba yëkkati benn association tudde ko euh, dooleel Mariama wax dëgg yàlla du loo xam ne dañ ko gis lu muy lu loo xam ne dañ ko yaakaar ci man rek ci ay valeur moo tax ñu def ko waaye du loo xam ne amagum naa ko ci ay ndombal tànk wala dara élection yi mboolem ku Mariama am jël nga li nga am jël nga li nga mën jël nga li nga xam muy ci zaahir muy ci baatin def nga ko ci yàlla suñu borom nag ñun dañ ko xam jiital ko ci suñu lépp moom mooy kiy maye ndam wax dëgg yàlla bim ñu ko mayut tamit ñun xam nañ ne list bii ñu nekkoon ñun am nañ ci ndam ndax liggéey nañ ci liggéey bu rafet ak suñu propre moyen ak suñuy xarit ak suñuy àndandoo ak suñuy bokk may sant bu baax ñi nga xam ne jàppale nañ mariyaama yépp may sant bu baax nag la lider président Pape Diop mooma boole ci ci ci moom mooma boole ci libéraux yi ndax man politique mën naa ne ci président Pape Diop laa ko doore dëgg-dëgg moom laa njëkk a adhéré wu te it nag maa ngi ñaan yàlla lépp lu may am ci politique di ko jàppale sama askan yàlla may ma ko ma am ko ci parti président Pape Diop bi ma nekk ndax politique su fekkee ne yow dangaa am say ambition lenn rek ngay soxla bu ko sa doole matewul muy parti boo xam ne da nga ciy jàpp pour liggéeyal say askan kon faawu ma sant président Pape Diop bi nga xam ne moo ma may opportunité boobu ba partem bii ma nekk ci tey lancé ci sama bopp ba département Mbacké yaakaar naa ni kenn laajteetul kuy Mariama mboolem ku fi yor parti ci département Mbacké soxla nga Mariama ci sa parti mais nag président Pape Diop la ko yàlla jagleel ma ciy kontaan bu baax ndax man su ma doon créer sama parti dama koy tuddee république des valeurs nangu ko ci sama càmmiñ Thierno Alassane Sall ma koy nuyu de passage valeurs yi ma doon chercher incarné ko ba yaakaar ne mi ngi ci man gisuma ko ci kenn ku ma doy ku dul président Pape Diop loolu moo tax man ba ma ko jàppee ba tey gisuma lenn loo xam ne dina ñaan naa ko yàlla échanger ak moom tant que maa ngi ci bokk gis-gis di gis sama bopp ci biir bokk gis-gis damay des ci bokk gis-gis doon gayndee bokk gis-gis di liggéey ci bokk gis-gis élection yi nag dugg naa ci ak jàmm génn ci ak jàmm am ci nag ak mbégte bu baax waa bi résultat yi amee li ma la wax ci sama ndoorteel émission rek moom laa lay waxaat ànd ci ak mbégte ndax su ma gisee jigéen ñi ni ñu ma accueillir ak cofeel gi ñu am ci man muy avant élection yi muy après élection yi lépp lu ma nekk ñu gën ma cee nekk jël seen lépp def ko ci élection yi ba mu jeex keroog bi résultat yi commencé génn kenn amul jàmm dama mujj sax rus ba man xamatuma lan laa war a wax dem naa ci ñoom daan waxtaan ak ñoom di leen wax man maay kan di leen wax li ma bëgg di leen wax fi ma bëgg a jëm man gëm naa ne fi ñu toll nii réew mi dafa toll ci foo xam ne ay valeur lañ soxla soxlaatuñu ay moyen su ma gisee sama campagne ni ma ko déroulé ci département bi ak nit ñi niñ ma wuysee du ay moyen moo ma may loolu loolu Thierno dama ci kontaan di ci sant yàlla bu baax jëloon naa sama propre moyen jënd sama lu mat 300 plates distribuer ko jigéen ñi nga xam ne toujours ñi ngi ànd ak Mariama femme leader yi nga xam ne toujours ñoom dañuy gis seen bopp ci Mariama xam ne Mariama du ku leen di wax lu dul dëgg du ku leen di nax ndax kuy raam di la bokk bu amee avion yaakaar naa du la fa bàyyi te xam nañ ma ak loolu sama digganteeg jigéen ñi dafa yàgg dafa yàgg. bi ñu demee fi ñu mujjee programme bi ñu mujjee dem yaa ngi fa woon yaa ngi doon dégg li jigéen ñi doon wax naan soxna Mariama bëri na jigéen ñoo xam ne tey ci Daaru Xuddoos moom moo leen jàngal liggéey moom moo leen créer moo leen wutal employé ci lan ne damaa yoroon sama place chargé ko jigéen ju ma gis nga xam ne dangay am soxla di yaakaar pour ñaan wala pour lépp ma ne la ñëwal jël ci marchandise mi nga dem jaay am na ci ñoo xam ne tey ñoom ay commerçante lañ yu mag yoo xam ne ci Mariama lañ jaar ma ci sant yàlla bu baax man xam naa nu ñuy créer société dama ciy kontaan ne la Mariama élection yi daf ci doon natt boppam xamoon naa sama bopp bu baax xam li ma posé xam ne loolu tubaab naan seul le travail pay kenn ku ne xam nga sa bopp ku wéet ku ne di nga xam yow yaay kan. xam naa man li ma maîtriser keroog bi ñu nekkee ci bureau de vote yi boo maa ngi seetlu ne mandataire wallu ak mandataire yu yi dañu mujj jaaxle ci man am na ci ku ku ku nekk Pastef koo xam ne bi ma xoolee mandataire Yewwi bi def na ma man defe woon naa ni patriote nga sa détermination bi yow ci département bi yow ab patriote rek nga mën a doon ma ne ko nag booba libéraux laa euh, bi ñu demee ma recensé bureau yi vingt bureaux ay bot laa sol maa ñoom ñoo ànd muy Cheikh Ndiaye ma di ko nuyu bu Daaru Xuddoos moo représenté woon sëñ fàllu Mbacke mi gañe ak mandataire yeewi askan wi ñun ñett ñoo ànd quatre 80 bureaux yi ñun ñoo ànd wër ko ma jiitu ñu topp ci fu ñu dem su ma laajee xaaju bureau yi Benno Bokk Yaakaar moo ci am représentant fu ma dem damay génnee ka fa nekk bu fekkee ne dangaa choisir bokk gis-gis ma woo ba nga génn ñu taxaw ñi nga may dégg maa ngi leen di nuyu euh, ne leen yéen yéen a fi représenté quatre partis yëpp. ci benn parti bi fi am représentant kon xool leen bu baax li ngeen di def ñoom dañu mujj waaru sax ci liggéey bi nga xam ne moom laa liggéey ci université ba ma ciy sant yàlla bu baax euh, bi ñu paree ba nga xam ne toog naa fa ba ay 10 heures ci guddi ma commencé déglu résultat yi xam ne résultat yi wax dëgg yàlla ni mu demee naruma neex ci laa ñibbisi bàyyi fa sama ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon ma leen di sant bu baax di leen gërëm muy sama wujju peccorgo yi ak sama dëkkandoo yi. ginnaaw bi ma askan wi xamalee ne ñoom xaalis góndiwu leen ñoom li leen li leen intéressé mooy ay valeur ak di leen wax dëgg bi ma demee marché Ocass marchand ambulant yi accueillir bi ñu ma accueillir dafa daw sama yaram ne ma soxna Mariama fii ku ne ñëw na fi ñun suñ carte yi duñ ko jaay. ay nit ñu am valeur la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy voteel te gis nañ ne njortu nañ ne yow lii ñu doon wër mu ngi ci yow kon ñu gis ne list bii nga xam ne tey dañ naan Sénégal am na fi doole bañ koy coow loolu xale yi gis njortu ci ñoom ba tax ñu am confiance ci ñoom keneen kuñ ko gis ci yow topp la affaire bi du xaalis du ay matériel du ay cortège loolu nit ñi voté loolu nit ñi ay ngëm-ngëm ay ambition nga am yéene te yàlla tax am sa pas-pasub ne askan wii nga xam ne ñoom ngay wut ci ñoom bis bu la yàlla mayee li nga xam ne moom nga soxla di nga leen wan ne di leen wan ne ñoom ñoo la jox li nga yore man foofu laa nekk sama lépp dama ko def ci doomu aadama ndax dama xam valeur doomu aadama toujours ku may waxal dama naan la nga tabax fukki société nga defar benn doomu aadama moo ko gën ndax boo defaree benn doomu aadama di nga am fukki société moom mu am fukki société muy ñaar fukki société mais jël alal bàyyi ba élection jub si nga jël yenn moyens yi tasaare ko ci askan wi ne ci ñëpp yeewu dañ koy lekk te duñ la voteel man de yàlla mi mu tiim xam na ne am naa confiance ne département bi li fi bokk gis-gis am man Mariama Touré seul man joué naa ci may profito nag di sant waa bokk gis-gis yëpp nag fu bokk gis-gis nekk rek fekk naa la fa nuyu la siyaar la sant la te encouragé la di ci jiital nag la président Pape Diop ci lii mu ñu defal kontaan nañ ci torop victoire moom Dakar président Pape Diop moo ko fa am. ndam ngañaay nag yàlla moo koy jox ku ko neex waaye victoire bi moom président Pape Diop moo ko am ndax li tax ma ne moo ko am ku gis ni mu campagne Dakar nga xam ne nit ñi dem nañ ba am lu seen xol namm dem nañ ba am lu ñu sentir waaye xam nañ ne président Pape Diop jeexul ci xalu xolu waa dakaar te incha allah yaakaar naa ne xale yi dinañ mer ba yëkkati euh, réew mi teg ko ci ay loxo yu mag ñu wóor. ànd ak ñoom di ko diriger di dérouler comme ni ñu ko bëggee. ñi may sant di leen di leen gërëm xam naa su ma bëggee lim dinaa dinaa dinaa juum waaye du ñàkk ma tànn ci ay quelques personnes rek sant leen ci waaw di ci jiital nag sama borom kër bi ma yàlla booleel di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di ci teg sama sama njaboot ak samay dëkkandoo di ci teg nag sama càmmiñ yi nga xam ne lu ne def nañ ko sëñ Moustapha Ndiaye Al bàyyiwuma sëñ xaadim Touré sama rakk ji nga xam ne dafa rey nag ca këram togg ay añ wàccee ay kaamil yu bëri jagleel ma ko wax dëgg yàlla loolu dafa tooy sama xol mënu ma ko fàtte Cheikh Abdou Karim Touré tamit Cheikh Abdou Ndiaga maa ngi koy sant di ko gërëm di sant président Pape Diop tamit di ko wax ne dem nañ ci élection yi ak suñu propre moyen xaaruñu benn moyen bañ nañ ko ba suñuy PV sax fayeluñ ñu ko PV yaa nga ne ñoo koy récupérer ndànk-ndànk di ko fay lépp ñoo dem ak suñu doole jël suñu ay oto jël suñu ay engagement responsabilité chargé des élections wala mandataire parti bi nga xam ne moo ma ko indi sama kër 4 heures du matin kenn ku ne ma dem sa kër yoon ne yónnee yebal fa oto mu jël si la ñëw siège keroog gisuma fa benn kuy siège wala benn mandataire bu dul Mariama ci université bi te li may wax dafa am ay seede yu leer ma bëgg nag képp kuy jëlati engagement di loo ay nit nga jël sa décision fay ko ndax loolu metti na man nag décidé naa ne dinaa fay PV yëpp ndax man ko gis-gis jaral na ma ko. bi ma ko woowee ne ko PV yaa ngi nii ñu indil ma sama kër waxuma waxi dara waxul waxi dara muy galoñaa PV yi moo ko indi 4 heures du matin sama kër wàññil ma ko muy 30 PV ma distribué ko. ñu ci benn dërëm waaye man dinaa ko fay man ak ñi ma àndal dañ doon nat suñ bopp ci élection yi te bu élection amaatoon suba ma mën a jël samay responsabilité doon candidate demal sama bopp élection ndax xew la sa loxo koo jox mu jox la koo joxul du la jox. lii moom signal fort la pour président Macky Sall. man tey président Macky Sall su ma ko doon xelal man personnel dama naan ko na anticiper élection présidentielle 2024 yi def ko ci législatif yi organiser ay élection jàmm ak salaam dem yoonam ndax kat lii signal fort la wax dëgg yàlla man bi ma dalee di fekk ay élection tey musuma gis élection yi sanction bii ñu teg ci kawam dama ko sax yërëm man nag fëkk yóbbuwuma man lu may wax sama engagement personnel dama ko ciy jël ndax man tuubaa dama ko xuus maîtriser ko am lu ma fi xam dafi dugg ci ruq yu bari ndax man toujours suma sama xëy dama koo jagleel askan wi fàtte sama bopp maire bi man jàpp ma ne Abdou Lahad Ka lañ sanctionné dañoo sanctionné président Macky Sall man gëm naa ne Abdoulaye Ka bu jëloon beneen bulletin bu dul bulletin beige maron bi man gëm naa ne lii lii ñu ko sanctionné du ko dal dañ leen a boole sanctionné Touba moom fi ñu toll nii mm, seen seen nuñ ko ciy waxeti seen kii moo fi baaxul seen communication ñoom waa APR moo des maa ngi ciy nuyu xarit yi ma ci am ndeysaan dañu maa naw di ma di ma di ma di ma encouragé bëgg ma lool ba ma xam ko muy responsable yi ma xam APR te ñu ay samay xarit ma di leen nuyu. moo man duñ jóg ci di ma woo man ku ne may woo man ku ne bëgg na ma ci sa parti waaye man maa choisir bokk gis-gis man maa choisir président Pape Diop ma di ko nuyu di nuyu sama grand dame boobu loolu ñu naan derrière grand homme il y a grande dame Ajaratu Ndeye Marie Diallo maa ngi lay nuyu di la ziyaare di la euh, féliciter di la encourager gis nañ sa taxawaay bu baax ci ginnaaw président Pape Diop ndax ñun amuñu lu dul président Pape Diop politique bii ñu nekk daal wax dëgg yàlla ñun bokk gis-gis lañ ci gis suñu bopp gërëm ñëpp soo gisee nag ñu doon xaar tey pour sant suñuy militant suñuy militante wax dëgg yàlla tollootuñu fu ñuy waxee ci ay mbedd di tasaare suñuy wax lépp lu ñuy wax dañu tax jàkkaarloo population bi directement wax leen ko may wax sama sama sama responsable yi sama militant yeeg sama militante yi nañu ma xaar amul noppalu amul dallu dans une semaine dinañ wàccaat ci terrain bi commencé battre campagne pour législatif yi incha allah yàlla may ñu ndam jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah